gannaaw bi ma nuyoo monsieur le ministre de l' éducation nationale di ci toftal ñi nga xamante ne ñooy ministres yi ak secrétaire d'état yi bokk ci gouvernement bi di nuyu tamit ñi fi teewal ambassadeurs yi yi ak consulat yi di nuyu tamit di ko beral loxo kii di directeur des affaires religieuses et de l'insertion de diplômés en langue arabe waaye di ñaanal di beral loxo kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla may leen wér taxawu leen te may leen gudd fan bàyyi leen suñu kanam ñu yàgg ñoo gunge di ñu tette di sargal tamit ñi nga xamante ne ñoo yore daara yi di ndeyu daara yi di boroom daara yi waaye di sargal tamit ndongo daara yi nga xamante ne yàgg nañoo yëkkati raay ak ci bitim réew maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew di góor ak jigéen di wax ne mbégte gu rëy laa am ci taxaw fii tey di wax ak ñi nga xamante ne ñoo fi toogal daara di wax sax ak ñoo xamante ne amoon nañu yéen a teew fii waaye seen diisaayu tànk mayu leen ñu teew ci bés bi jombul na fi ñu nekk ñu ñuy déglu te bu ñu déglul sax na ngi leen ñu yéggalal suñuy nuyoo ci ñoom ak mbégte gu ñu am ci ñoom ak cofeel gi ak worma gu ñu am ci ñoom di bokk ak ñoom bés bii nga xamante ne tey di ñettoolu bés ñu ngi koy jagleel daara muy nag bés boo xam ne yàlla may nañu ñu war a taxaw xoolaat taar gi nga xamante ne daara am na ko ci biir Sénégal te mu doon lu yàgg doon loo xamante ne bu doon tabax la ci société sénégalaise daara mooy fondation bi ndax daara moo defar ñëpp ñi nga xamante ne tey ñooy mooñaat di tettewaat ñi nga xamante ne ñoo nekk ci société sénégalaise alhamdulilah rabil alamin ci bi ñu yàlla mayee ci décret 2023 2025 ñu jëmal journée bi muy wane nag suñu taxawaay temm ci sargal daara yi di sargal ñi nga xamante ne ñooy nekk ci daara yi di mooñ di defar doomu aadama yi di defaraat ruux yi te ci doomu aadama yooyu la taxawaat sukkandiku ci ñoom ci seen yar ak ci li jiitu ci ñoom ci ay valeur ak ci diine ngir tabax réew mi kon daara weesu na rekk foo xamante ne dañ fay jokkalante xam-xam waaye dafa nekk foo xamante ne dañ fay defaree doomu aadama di defar ruuxu doomu aadama loolu moo tax daara egg nu ñu yàgg yàgg nañ fi lool te yàgg nañoo tàggat nit ñi di góor ak i jigéen ci ay génération génération di leen jàngal yar di leen jàngal oyof di dindi lépp loo xamante ne rëy la ci ñoom pour gën leen a saxal ci loo xamante ne loolu mooy diine di diine islaam waaye defar leen tamit ngir ñu mën a dugal seen loxo bu baax a baax ci liy tabax réew mi kon bu ñu dee sargal daara yi tey dañuy sargal lépp loo xamante ne ndono la ci mag yi waaye di sargal tamit ñun seen gis-gis ak seen liggéey ci li nga xamante ne moo jëmal li société sénégalaise tey te ñu koy bàkkoo fu ne di ko sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah rabil alamin ci li ñu yàlla mooy ci daara fii Sénégal ak ci ay mag yu baax yoo xamante ne jox nañu héritage bu am solo kon lii di suñu engagement tey mooy gën a jàppale daara dafa seen nañ ci taxaw bu baax a baax a baax ànd ceeg ministère bi waaye ànd ceeg ñi nga xamante ne mooy borom daara yi mooy ndeyu daara yi mooy kilifa diine yi ci biir réew mi ak sax ak ndongo daara yi waaye ni ñuy jàppaleen système daara yi du rek gën leen a ñongal gën a baaxal bërëb bi ñuy jànge gën leen a gunge ci jàppale ci fan wu ne waaye tamit loolu ak nuñ ko def def def dinañu bàyyi li nga xamante ne mooy taarixu daara mooy identité daara mooy li nga xamante ne mooy richesse su daara ak singularité daara ndax bu daara yi melee nu ñu may tey seen mission moo tax te ñu matal ko baax a baax waaye tamit dañ ciy sargal ñëpp ñoo xamante ne ñoo ko taxaw ñoo taxawoo daara ba daara nekk lu mu nekk tey te ñu doon ne ci foo xamante ne ak dëggu ci lañ lañ ci ak dogu ci lañ ko tabaxee ñii nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo nekk ci daara yi te di yar ci discipline ci respe ak ci humilité mooy ñi nga xamante ne ñooy waajal ndaw ñoo ñu defar ci daara yi ci ñuy taxawee ci biir société yi waaye ni ustaas yi bare bare bare bu dul woon ndeyu daara yi taxaw seen wet njaboote ñëpp taxaw te yenn say sax duñu leen gis di togg di bale di taaral di defar xale yi di leen tett di leen jàppale kon xëy na ndam gi daara am tey dina xaw a am fu mu desee kon gàcce ngalaama yéen yéen ñëpp ñi nga xamante ne yéenay ndeyu daara yi taxaw ci ustaas yi yore ay daara sax waaye di matal liggéey googu nga xamante ne daara jàng koy def jigéen ñooñu laa bëgg a wax ne nañu xam ne ñun dañu leen di bëgge bu baax a baax a baax di leen ndàmmoo waaye tamit bëgg leen yëkkati ci bés gii tey pour taxaw ci seen liggéey gu rafet bi nga xamante ne ñu koy def jaarale ko ci daara laaj na nag bés gu nii tey ñu taxawaat seetlu xool li nga xamante ne mën na nuroog luy gàkkal daara ñu gën ko defar gën ko ñongal muy ni ñuy taxawoo xele yi ci ni ñu nekkee ci mbedd mi loolu nag responsabilité état la waaye responsabilité yi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci daara yi la dinañ ci gën a taxaw bu baax gën a jàppalanteeg daara yi pour xool naka la ñuy fexee ba loolu jóge fi waaye njàngaleb daara gën a sax gën a dëgër gën a ànd ak jamono ak nu muy doxe kon dina baax bu ñu demee ba toogaat ñu waxtaanaat li ñu bëgg daara doon naka lay méngoog jamono pour ñii nga xamante ne ñooy génne ci daara yi mën a intégré wu ci nu mu gën a yombee ci société sénégalaise loolu moo tax may woote ci bés ni ki tey ci njiital ministre de l'éducation nationale booloo ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci daara yi pour ñu am ay waxtaan yoo xamante ne ay assises nationales des daara lay nekk waxtaan yooyu day tax ñu xoolaat biñ ci toogee muy ñii nekk ci daara yi ñii nekk ci gouvernement bi ak ñëpp ñoo xamante ne ñuy jàppale ci nu ñuy waxtaanee te ci lu war a nekk réforme yi ñu war a andi pour daara gën a taxawee lii di place am loolu nag buñ ko waxee dañ ciy xalaat ñetti tomb bi ci njëkk mooy naka la ñuy fexe ba daara taxawaat ci place ba fexe ba kiy jaar ci daara ak kiy jaar ci beneen école donte ñoom ñëpp ay doomu sénégalais lañ état du Sénégal taxawoo leen. yamale leen képp ci ku nekk boo tane ci yoon wi nga xamante te ne foofu nga bëgg a jaar pour defar sa bopp waaye tamit dina baax ñu fexe ba nit ñi bu ñu jàngee diine ba pare ñu bañ a am pour jàngaat maanaam ñu xool ni ñu leen di jàngalee diine lan lañ leen di jàngalee ci wetu wa pour bu ñu paree ci njàngum diine ñu mën a am liggéey goo xamante ne ci daara ji lañ ko commencé jàng pour mën a bokk ci ñoo xamante ñoo ci gën xarañ ànd ceeg nag lépp loo xam ne mën na leen yombalal seen liggéey fii ci biir réew mi wala ci bitim réew war nañoo tamit xool naka lañuy ñuy sampee kuréel pour gën a taxaw daara muy taxawoo goo xamante ne dafay jaar ci koom waaye dafa jaar tamit ci liy jëmal daara ci kanam te xam naa ne waxtaan yooyu biñ ca demee bu soobee yàlla dinañ ko gën a matal réforme bii nag ñuy waajal te xam naa ne lépp lu ciy tukkee ci waxtaanu ñii fi teew tey nar cee teew ci bés bu jotee ñoo ko nar a waxtaane ndax boo bëggee dimbale waa daara faw nga laaj la waa daara ji fan lañ mën a jaar ba dimbale leen méngoog li nga xamante ne mooy seen gis-gis waaye am na lu ñu seetlu mooy daara yi nga xamante ne gën nañ leen moderniser ba dem ba tey ñu egg ci ay université bokk ci ñi nga xamante ne loolu la daara mos a jàngale yàgg nañoo may ndam surtout ci compétition internationale yoo xam ne ay góor ak yi jigéen mel ni ñu fi jaar sànq yàgg nañoo yëkkati raaya Sénégal waaye nañu fexe tamit ba ñii nga xamante ne dañuy génn ci daara yi di dem ci université islamique yi que mu nekk fii ci Sénégal wala mu nekk ci bitim réew mën na booloo bokk liggéey ak ñi nga xamante ne dañoo jaar ci système éducatif traditionnel bi bi mu bëgg a wax foofu mooy école moderne euh, bi defar les fonctionnaires notamment et les autres acteurs de la République kon mbokk yi lii nga xamante ne mooy li ñu donnee ci daara te muy alal goo xamante ne amul njëg ñun ñëpp ñu war ko xam jàppee ko ñaari loxo jàppee ko fula gën ko taxaw wareef la ci ñun ni leneen nekkee wareef ci ñun ndax daara amul lenn lu ko ëpp solo ci li defar réew mi ak ci li defar doomu réew mi kon maa ngi leen di woo góor ak jigéen mag ak ndaw seen taxawaay gii ngeen am te gouvernement bi taxaw temm tey gën leen ci bëgg a gunge ndax ñun li ngeen di defar moom lañuy ñuy utiliser muy ressource humaine te nu ngeen ko mooñee ba mu gën a mën a ñong pour ñu utiliser ko noonu pour tabax réew mi rek yéen lañ koy santé kon jàppalante gi du mën a ñàkk waaye ci loxo ak kaw loxo waxtaanaat xam ne li ñuy liggéey ak lu ñu bëgg defar Sénégal mooy ñuy tax lépp loo xamante ne am nañ ko yéene def ci daara ñu matal ko. bëgg naa nag balaa may tëj sama kàddu ma beral loxo kii nga xamante ne mooy secretaire général de la ligue islamique muy invité d'honneur bi nga xamante ne woo ngeen ko ci bés bi. te di ko sargal di ko jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci diine gi ci benn fàpp fànn wépp nag. rawatina ci jàppale gi nga xamante ne mu ngi koy jàppale ay daara yu bëri nekk ci biir réew mi maa ngi leen di di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.